mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara ci seen émission bi ñu naan kàggu ngeen ci ànd ak sëriñ Mbàkke Soxna Lo Kebe boroom baax ci biir ngeen ci fekk seen pëj bi ñu naan bis ne tey ngeen ci ànd ak Abo Bousso imam Yali ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor bis na tey bis na tey la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee woon ngir ñu toji xërëm boobu ñuy wax laata laata bokk ci xërëm yi nga xam ne alquran tudd na leen moo ko Uzza nekkoon ay xërëm yoo xam ne ñu ngi woon diggante Makka ak Madina sallallahu alayhi wa sallam yabal ay saxaabiyoom ginnaaw fatu Makka gi dem ubbi ji xërëm yooyu loolu nekkoon bis na tey ñaar fukki fan ci weeru koor atum juróom-ñeent ci gàddaay gi yemook atum 631 ci juddu yonent Yàlla Isa bis na tey ñaar fukki fan ñett ci weeru weeru koor lañu saxaloon yoonal jullik trawih bi sa day ñaar fan ñett ci weeru koor ci abdullah ibn anas sahabi bobu ñewon ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci madina ngir dugg ci l'islam bi sa ñaar fan ak ñett ci weeru koor atum fanweer ak ben ci gaday gi yamok atum 652 ci jamono sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci la jullit ni daldi gagné dëkk bi ñuy wax sasanin sasanin bokkon ci état bu perse bour bu ñuy wax yes da moko jitu won ibnu sahriya mom mom mujj ci yi perse yi lolé bi setale woon ñaar fukk fan ak ñett ci weeru koor bi setay ñaar fukk fan ak ñett ci weeru koor ci la xalifatu suleyman ibnu abdul malik dal di fal ababakar ibnu muhammad ibnu amrin ci gouvernance Baghdad. loolee bis na tey la woon ñaar fukk fan ak ñett ci weeru koor atum 69 ci gàddaay yi yemook atum 715 bis na tey ñaar fukk fan ak ñett ci weeru koor atum juróom ñeent fukk ak juróom ci gàddaay gi ci la xajjaaj ibnu yusuf ashaqafi dal di faatu moom xajjaaj ibnu yusuf ashaqafi di fàttali ne bokkoon na ci généralu dawlatul amawiya fekk baax ci réewum taif moom moom mi moo jiite woon armée bi nga xam ne euh, moom moo demoon Makka ak Madina ak Taïf ngir xeex yi ak Abdullah ibn Zubayr ginnaaw bi ñu rayee Seydina Xuseynu te waa Makka ak Madina Taïf nekk Iraq daal di jox seen bopp Abdullah ibn Zubayr fekk na booba ku ñuy wax Marwan ibnu Hakam moo nekk xalifa Amawiyuuna yi ginnaaw bi Marwan faatoo bàyyi fi doomam bu ñuy wax Abdul Malik ibnu Marwan Abdul Malik ibnu Marwan moomu ginnaaw bi mu xeexeek Musab ibnu Zubayr rey ko ci Iraq dafa yebal Hajjaj ibnu Yusuf Ashaqafi mu dem Taïf ubbi ko nang ko ci loxoy Abdullah ibn Zubayr nangu Madina waaye dem yi daal di encercler fi nga xam ne moom mooy Makka ba ni mu rayee Abdullah ibn Zubayru daal di delloo si waat mboolem état islamique bi ci loxoy Amawiyuuna yi kon moom Hajjaj ibn Yuusuf bi sa tey la faatu woon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor sa tey ñaar fukki fan ci weeru koor ci la Ahmad ibn Tulun daal di dugg ci réewum Misra yilif ko nekk fa gouverneur ginnaaw bi mu remplacé al-Mu'taz bokkoon ci xulafaaw Bani Abbaas yi bi sa tey ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor picc moom yi nga xam ne nee da doon naaw di wax ci kàddu gu leer def ko ñaari yoon ci weeru koor ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mooy ñaareelu yoon bi nga xam ne picc moomu def na ko muy am picc moo xam ne dañuy wax ni dafa am dunq yu weex ak ñuul naaw ba naaw ba jege suuf dal di xaacu moom moom picc mi wax ci kàddu gu leer ne itaqullah daal di koy def ñeen fukki yoon naaw dem ci ëllëg sa mu si siwaat defaat ko ba muy ñeenti yoon wax nañ ne lu ëpp juróomi téeméeri doomu aadama ñoo ko dégg waaye mu def ko it ci ay dëkk yu wuute loole bi sa tey la woon ñaar fukki ñett ci weeru koor atum 242 ci gàddaay yi bis sa tey Mansour daal di fal ki nga xam ne mooy Riyah ibnu Ousmane al Madinatul Munawwara mu nekk fa gouverneur loolee bi fetale woon ñaar fan ak ñett ci weeru koor atum 144 ci gàddaay gi mbokk yi ñu leen sant bu baax baax leen gërëm rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bind ak di ñu envoyé ay vocal di rafetlu li nga xam ne mooy pëj bi ñu wax bis na tey jërë ngeen jëf yéen ñi safoo bis na tey yal leen yàlla fay